mais dama dama dama wax naa ko démb invité bi nekkoon fii mu def ci commentaire bu am solo mooy yàlla du changer ñun suñu comportement yi tant que ñun jóguñu pour changer ko suñu bopp. loolu ah. alxuraan la alxuraan la. waaw waaye léegi lu ciy pexe. alxuraan moo xanaa ñu changer rek. mais kon kon est-ce kon mën nañu wax ne kon natiijaat yi muy jur dootul yàlla waaye noonu ngeen baal ma ci kàddu gi. wa ah yàlla kat dañ koo jiiñ ne ko yaa yàq nangam. waaw loolu la waaw jiiñ ko ba tey. wallaay waaye miim na ba tey. zahara al fasaadu. fil ard fil barri wal bahr. Mhm. jeex na. yàlla nee na nag bii yàqu du man seen dëkk bu salti bii bu corona ñëwee dugg ci seen biir du man. déedéet waay yéen a. anu na de. waaw waaw zahara al fasaad fil ard eh, bi maa kasabat bi maa kasabat aydina jeex na. Mhm. nee na commencé ngeen yàq géej gi xaman nga ngor. anamu. gisatu ko xamatuma sax. ak yeneen xeeti jën yoo xam ne ñu ngi fi woon na ma ndaw ko nday baal. jeex na fi ne da nga daan añ sëñ Maodo di di gis lu ñu tuddee nenu jën ana neni jën yi. ah peut-être ñu ngi fi. ah déedéet nature bi daf ñoo mere sëñ Cheikh nee na. radiyallahu ta'ala anhu nature bi daf ñoo mere. tabiya bi waaw daf ñoo mere ndax ñun. élément lañ ci nature bi nature bi am yeneen élément élément yépp nangu nun nu bañ xaal li xaal di saf léegi la doon saf 1960 1960 ci la xaal gënu na neex. xëy na engrais bee tax. a ah, nature bee bañ rek am na jamono yooyu am na xob bu ñu daan toog ñu tuddee ko laurier. Mhm. mi ngi ci cin ba léegi. waaw lam daan saf lay saf. yow pour yow jàpp da ngaa jàpp ne tabian bi na mu meloon asliyan dañ ko euh, saharal fasad fil barri fil barri wal bahri bi maa kasabat ay diina jeex na da ngaa ne loolu moo moo dugg foofu yaakaaruma ko daf maa wóor daf maa wóor yaakaaruma ko de kon de ba noppi mu ne inna allaha laa yuxayiru ma bi xaw xataa yuxayiru bi anfusihim lii leen naqari ci man ñu ne ah mu ne du ma ko dindi li fekk li ma naqari ci yéen dañu loolu laa koy firee tey rek waaw lii leen naqari ci man du du du ma ko dindi li fekk li ma naqari ci yéen dañu. waaw léegi. Hmm. loolu problème boobu est que kon du jël du du jur àqs ci li yàlla wax ci alxuraan ne yahdi man yasha wa yudillu man yasha. lu dox. bokkuñu lu ñuy dox lu ko neex lay def fee kii fii. waaw yahdi man yasha. waaw yudillu man yasha. waaw bokkuñu lu ñuy dox. logique yi bokkul. waaw tey soo amoon sa doom. Mhm. Mor Faye. Mhm. léegi Mor Faye xëy na la papa sunu maître nee na dañu war a jënd kaye. Mhm. nga ne ko kaye li muy jar mu la kaye cent page mi ngi jar mille francs mhm. nga jox ko 2000. mu dem jënd kaye lu mu desal. 1000 1000. Mhm. mu jënd ci almet taal sama kër. xay yow yaa taal kër gi. <laughs> mais wax dëgg yàlla yónni ma ko woon yàlla noonu la. yuddil may saw noonu la doole kii def li muy def maa ko ko may. doole kay def li mu def maa ko ko may. loolu rek la wax kat. dem maanaam kenn ku ne la nga lay sa yéene moo la moo la jox pouvoir. ah jeex na bu nawetee kaay sëñ Mag sëñ Maodo. ku ne loo bëgg a ji rek moom ngay ji mu ñëw tawal la. Mhm. ka ji kaan yi saxle sa wexxat ka ji kaan suukar safle sàpp